ak ñoñam ak i ak képp ku méngoog moom ginnaaw loolu ñoo ngi nuyu waa keppaangoog salaatu xala nabi mm, groupe numéro un góor góor yàlla yi euh, groupe whatsapp euh, bu jigéen ñi ñooñu ñëpp ñoo ngi leen nuyu nuyoob islam te mooy asalaamualeykum wa rahmatullahi taala di am mbégte nag ci ñi ko benn mbokk sàkko woon ci man ne nañ ko defal waxtaan ci salaatu naariya benn mbokk mu bokk ci groupe bi moo sàkko woon ci ñun ñu defal ko waxtaan ci salaatu naariya salaatu naariya nag bari na ay tur danañ ko wooyee salaatu naariya danañ ñëw ci lu tax ñu tuddee ko salaatu naariya am na yeneen tur des na ko wooye asalaatu taasiya di ko askanalee ci boroom xam-xam boo xam ne sufiyank la ñu koy wax Ibrahima Taafi nga xam ne mi ngi génn àddina 866 ci gàddaay bi am na ñu koy wooyee assalaatul qurtubiya di ko askanale ci imaamul qurtubi bi nga xamee ne mi ngi génn àddina 671 ci gàddaay bi am na koy askanale sax tamit moom salaatu gi ci ar e, e, imaam Ahmad ar-Rafahi mi nga xam ne mooy moo sos tariqatu rafahiya nga xam ne mi ngi génn àddina six cent cinq cent cinq ci gàddaay gi ba tey salaatu gi danañ ko wooyee e, danañ ko wooyee bis salaatil kaamila loola ci ay turam la assalaatul kaamila ndax tàmbale tàmbalee allahuma salli salaatan kaamila ba tey salaatu gi di salaatu naariya am na ñu koy askanale ci Muhyiddin ibnu Arabi nga xam ne mi ngi faatu 628 euh, ci gàddaay bi ku ñu wax Xaasim Ibrahim Alkayaali loolu la wax ci téere bi mu wax bi mu tuddee tanbihatun ala ulwil xaqiqatil muhammadiya nee na salaatu gi eh, al cheikhul akbar muhiddin ibnul xarabi oh, moo ko def eh, salaatu gi salaatu naariya am nañu koy tuddee bi salaati tafrijiya salaatu am nañu ko koy wooyee am nañu salaatul faraj ngir dafa gaaw ci wuñu njàqare ak ay stress ak ay euh, jafe-jafe moo tax ñu tuddee ko asalaatu tafrijiya julli gi nga xam ne day wuñu euh, njàqare yooyu yëpp euh, ay turam lañ te wax nañ ne fa kasratul asmaa yi tadallu ala sarafil musamma am na ñu ko wooyee miftaahul kans zil muhit miftaaxul kansil muhit am na ñu koy woowee noonu kon gis nga moom bari na ay tur moom salaatu naari bii tur yu bare bari la am am na ñu koy wooyee wax naa ko léegi miftaaxul kansul muhit li nayli muraadil abid tur woowu boo demee ca xasiidatul athar da nga ko fa fekk kon gis nga indi naa ci tur yu bare bari indi naa ci salaatu naariya indi naa ci salaatu taasiya indi naa ci salaatul xurtubiya indi naa ci salaatul kaamiliya eh, indi naa ci salaatul tafrijiya indi naa ci salaatul faraj indi miftaaxul kansul muhit yooyu yëpp euh, ay turam la danañ ñëw ci lu tax ñu tuddee ko loolu moom nag bari na ay version bari na ay riwaayaat am na benn am na ñaar yu ma dugal benn bi mooy allahumma salli salaatan kaamilatan wa sallim salaaman taamma ala sayidina muhammadin nabiyi l umyi alladi tanhalu bihi al-uqudu wa tanfariju bihi al-kurubu wa tuqda bihi al-hawaa'iju wa tunaalu bihi al-raqaa'ibu wa husni al-khawaatimi wa yusfa al-qamaamu bi wajhihi al-kariim wa ala aalihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli maalumin laka boobu mooy benn bi waaye amaan na allahumma salli salaatan kaamilatan wasallim salaaman tamma ala sayyidina muhammadin allazi xam nga bi ma njëkk a jàng muhammad nabiyil ummi lazi nabiyil ummi yi amul ci dana muhammadin lazi tanhalu bihi alxuqudu wa tanfaraju bihi alkurubu wa tuqada bihi alxawaaju wa tanaalu bihi alraqaybu wa xusnul xawaatimi kee xawaatimi kii xawaatimi la def wa yusfasal xamaam bi shirkari wa ala alihi wa sahbihi fi kulli maatin wa nafasin bi adadi kulli mahlumin laka am na benn riwaay boo xam ni allahumma salli salaatan kaamilatan wa sallim salaaman taaman ala sayyidina muhammadin allazi gi am fii indiwu ko indiwu nabiyul ummi yi tanhalu bihi luqudu indi waaye ala kulli haal bum ci mën a doon rek boo ci wax euh, yëpp wér kon gis nga salaatu naar yi mi ngi noonu li tax ñu tuddee ko salaatu naar yi dafa gaaw ci aajo ba mel ne ni sawara gaawee ci lakk ci lakk am bopp noonu la gaawee ci aajo noonu la gaawee ci aajo téer yu bari nag indi na ko xasinatul asrar indi na ko boo demee ci mu farajul kurub bu yuusu dabaxaani indi na ko afdalu salawaat bu yuusu indi na ko saxaa saxaaritu daarini bu yuusu dabaxaani indi na ko hmm, téer yu bare bari euh, indi nañ ko waaw kon salaatu gi mi ngi noonu boo demee ci téere bu ñu tuddee abwaabul faraj moom itam da ko fekk salaatu gi abwaabul faraj da nga ko fa fekk te téere boobu Muhammad Alawi al-Maliki ka faatu ci 1425 ci gàddaay mi moo ko indi kon salaatu gi mi ngi noonu salaatu gu gaaw la ci faj aajo salaatu gu gaaw la ci wuññu njaqare salaatu gu gaaw la e, ci baaw naan kon nañ ci indi tuuti rek lenn na ci ay njariñam boo demee ca e, e, xoratul ni bu as Cheikh Soxayb Mbàkke da ko fa fekk da nga ko fekk wax ne kuy ku def saa yoo jullee farata jàng ko fukki yoon ak benn sa wërsëg dana wàcc mel ne taw aw kama xaala radiyallahu taala anhu kon salaatu googu mi ngi noonu salaatu naariya salaatu gu am doole la salaatu gu yéeme la mën nañoo ñëw ci lenn ci ay njariñam moom salaatu gi hmm, da nga fekk ci xasinatul asraar mu ne salaatu gi ñu ngi koy tuddee salaatu tafrijiya al xurtubiya nee na boo ñëwee ci xindal maxaari bi nag ñoom ñu koy wooyee salaatu naariya lu tax ñoom buñ bëggee amal mbir wala ñu bëgg a dàq ñu bëgg a jañ luy ragal dañuy dajaloo benn barab benn place jàng salaatu naariya limu quatre mille quatre cent quarante quatre ñeenti junni ñeenti téeméer ñeent fukk ak ñeent bu ko defee fa bu ko xo sari sarixan kannaar lañ bëgg dañu koy am ci bu gaaw ñu sa war gaawee ci lakk bopp moo tax ñu tuddee ko salaatu naariya kon mu ngi noonu aalul maxaariba ñoo ko tuddee noonu waaw bu dee nag ñi nga xam ne ñoom ba ñuy jëfandikoo asaar ñooñ asaar ñoom ñu ngi ko tuddee miftaaxul kansil muhit li nay li muraadil abid caabi ndàmb li nga xam dafa peeg ngir jaam bi am lim bëgg kon mi noonu hmm, kon salaatu gu am doole la salaatu gi daal dafa dajale mboolem secret yëpp ëmb mboolem secret yëpp gaaw loolu ci wuñu njàqare gaaw loolu ci amal li nga bëgg li ma wax léegi tam nekk ci xurtu xay ni ne moo koy jàng fukki yoon ak benn ginnaaw julli farata gune euh, day mel ne sa wërsëg day mel day wàcc mel ne taw moom itam xasinatul asar indi na ko nee na ku ñu wax a cheikh Mouhamad at Tunisi nee na man daawama ala hadihi salaati naariya kulla yawmin ihda asra matan ka annaha tansilu risqa mina samaay moom waxul sax ginnaaw julli farata waaye moom dana su ko koy jàng bis bu jot rek fukki yoon ak benn day mel ne euh, sa wërsëg day wàcc comme taw mu ne waxaala al imaamu daynuuri man xara haadihi salaat duuru kullu salaatin ihda asra matan wa yattaxisuha wirdan laa yanqatihu fa innahu yanaalul almaraatib alaliya wa dawlatu alganiya nee na imaamu Daynuuri nee na ku saxal salaatu gi salaatu naariya saa yu jullee def ko fukki yoon ak benn def ko wird saxal ko martab yu kaw yëpp ak koom yëpp da ko am mu ne mu man daawama alayha baxda salaatu subhi kulla yawmin ihdaa wa ihdaa arbaxiina maratan yanaalu muraadu ajam ba tey képp ku saxal saa yoo jullee suba jàng ko ñeent fukki yoon ak benn mooy 41 li ko bëgg yëpp da ko am ba tey waman daawama alayha kulla yawmin mia maratin yaxsulu matlabuhu wa yudriku xaraduhu fawqa ma araado ku saxal di ko jàng bis bu jot téeméer yoon li nga bëgg da ko am li nga xaymeem aleykum salaam mbàkke li nga xaymeem da ko am bisimilah li nga xaymeem yëpp dana da nga ko am da am sax lu kawe sa njort da am lu kawe sa njort ba tey ku sax ci dafa jàng 313 te mooy ñetti téeméer ak fukk ak ñett ku saxal salaatu naariya ñetti téeméer ak fukk ñett ku ko saxal sun borom dan la wuññul sekkere yi li nga bëgg a gis ku saxal di ko jàng junni yoon moom itam am loo xam ni meralkat yi mënuñu ko mënuñu ko meral da am loo xam ne bët mosu cee tege nopp mosu koo dégg xol musu musu koo xalam ku saxal junne yi salaatu naariya euh, par bis mu ne xasiratul aftar nee na al imaamul xurtuy nee na képp ku bëgg a amal mbir mu yitte lool walla bëgga a euh, jañ njàqare na jàng salaatu tafriji bii te mooy salaatu naariya def ci tawasul ci yonent bi sallallahu alayhi dañ koy jàng ñeenti junni Euh, ak ñeent téeméer ak ñeent fukk ak ñeent quatre mille quatre cent quarante quatre incha allah soo defee loolo mbir moomu mu bëgg faju soxla soosu ma am dana faju lam bëgg a jañ euh, dana jaju la taxoon mu di ko def dana ko am waaw lépp lu mu ci yéene rek dana ci am ba tey it nii ibnu hajar al asqalaani yi moom itam wax na loolu ci lim ne fa innahu iksirun fii sababit taxsir waa ne lu am solo la moom xalaatu naa léegi nga def ko quatre mille quatre cent quarante quatre ñeenti junni ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak ñeent limu duma dem ñeent ñeenti naan dam mooy ñeenti junni ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak ñeent xam naa mbokk yi liñ doon wax ci salaatu naariya jeexul waaye mën nañoo yemale fi jataay bi ba jataay bi di ñëw incha allah ñu woy ak yéen ci asalaatu naariya indil naa leen tur yu bari yu am te fa kasratul asmaai tadallu ala sarafil musamma waaw wax naa leen tamit ku koy jàng fukki yoon ak benn ginnaaw julli farata gu ne sa wërsëg day wàcc na taw ñeen fukki yoon yi ak benn ginnaaw julli suba moom itam noonu téeméer yoon yi moom itam noonu junni yoon yi moom itam noonu ku am aajo nag aajo ju mën a doon nga bëgg mu fajo wala lépp loo bëgg a jañ nga bëgg mu jañu nga def ko li du ma dem 4444 moom dafa gaaw ba mel ne sawar wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.